dañuy dem ñun yàlla rek xam kañ la ñuy xegg waaye xam naa ne danañ xegg ñu ngay dem ñun te yàlla rek xam ñun fa ñu jëm ñun waaye xam naa ne danañ xegg yoon wi dana metti xam nañu loolu waaye gëm yàlla moom la danañ xeeg yàlla rek a xam nu ñuy xeeg waaye xam na ne danañ xeeg ñu ngay dem ñun te yàlla rek a xam ñun ñu jëm ñun waaye xam na ne danañ xeeg incha allah. allo asalaamaaleykum YouTube alhamdulilah barikàlla dikkati naa welcome leen suma YouTube channel bi. tey may def Gambia and Sénégal current affairs ñu xamee ko si lii xew léegi current affairs mooy lii xew léegi and also dinaa def uh, uh, English lesson mooy ne dinaa jaxase yeneen wax yi may wax dinaa ko bind si hàngale you know so ko jaxasee ak hàngale di leen jàngalaale hàngale ak yéen dégg xolof ngeen déggaale xolof yi tamit so ya so dina xam yenn wax yoo xam ne dinaa ko bind ci hàngale nuñ koy waxee te naa leen wax nuñ koy waxee just pour ngeen jàngale si so yeah welcome leen si channel bi doo mun a wax li xew Gambia Sénégal yëpp of course xaw ma yu xew yu xew yëpp waaye yi ma si xam daal dinaa leen ko wax tey good so good so lu may njëkk a tàmbalee luy xew Gambia Sénégal right now damay njëkka a tàmbalee Gambia and then mujjee Sénégal Gambia léegi fa xam lu fa xew ñaari yëf moo fa xew benn bi Amerika la xewee ci Gambian bu ne america ñu xamee ko ci Baba boroom jalan yi nga xam ne nii moom jalangam yee koy jox ay viewers wax na ko àdduna si yëpp boroom suma jalang yee suma yàlla Baba Jah fa lu def si vidéo bu xees bi expose boppam wax àdduna bi yëpp moom nu mu nekkee narcissistic an li tax muy support Adama Barrow loolu la ko yàlla weer mu weer boppam si vidéo boppam bi mu def bu yàggut si Mother's Day the so-called Mother's Day gift video fala weeree boppam ha moo tax ma bëgg yàlla jërëjëf yàlla ew wax naa ko sama video yi the whole time nit ki noo manti mel rek ah ngay ñëw wax ko àddina si without even noticing doesn't matter ngay def video or not noonu lañ yàlla bindee but anyway kontaan naa trop si ne nu ñëwee wax àddina si yëpp moom mooy kan te danaa wax loolu noonu after waaye lu may njëkk mooy marché ba lakk marché Brikama fa lakk léegi marché ba mu lakkee nit ñi jógati nañ nag waaw di wax ne opposition du ñu xamee ko ci daabo moo nit nitam ñaa lakk marché ba Brikama beneen dëkk bu ndaw la bu ne Gambie beneen capital bu ndaw bu tudd Brikama seen marché ba fa lakk waaye duur marché bu mag ba de ñu ne marché fëgg jaay ba lakk ba marché fëgg jaay ba lakkee ca guddi ñu ne marché fëgg jaay ba nit ñi nga xam ne bëgguñ boro ànd ak daabo ñoo ko ñoo ko lakk nit niti niti niti niti boro yee ko wax kenn ci niti boro yi koo ne nii ku mën a wax la ci Facebook bi te nit ñu bëri di ko dégg mu ñu xamee ko ci amat gite moo génn tuumaal niti baro yi tuumaal niti niti daabo yi ne ñoo lakk marché ba mu ne moom mën na ko waat ci alxuraan ne ñoo ñoo ko lakk waaw daal di wax wax wax daal defoon naa ci vidéo sax ba pare vidéo soose yooyu noonu lu xew la te nag moom xaw ma lu tax muy tuumaal niti baro yi niti daabo yi ne ñoo lakk marché ba mu ne parce que daabo moo waxoon ne moom dana fexe dana def ba fexe ne nguur gi dana fexe ne nguur gi daal fay mel ni Gambie xamul nguur mooy on gofon on gofon mooy comme ça danaa la def doo nekkati nguur wala nguur gi du xamati nguur nguur dëkk bu xamul nguur daal mooy on gofon so market mooy marché market on fire mooy marché marché buy lakk market bon market mooy marché bu lakk xam nga bon boo xam ne nii bon mooy lakk boo xam ne mu ngi lakk léegi su lakkee ba pare wala lakk boo xam ne nga fa war a lakk ganna afta lakk bu lakk ba pare dafay nekk bond dinaa bind ñaari nga gis hàngale dafa xam lu xew léegi wala luy war a xew ak lu xew ba pare dafa xam luñ ko dee little different bu fa dee nekk li si bëri danga dee génnee euh, lettre bu mujj bi nga toon ko si ed ok so bond market mooy marché bu lakk ba pare mooy bond market danaa ko bind fii ngeen jàngale wax boobu noonu ok so marché bam lakkee ba pare mu ne ñële ñoo ko lakk UDP ak ak can't pronounce the word accusation accusation accusation can't pronounce the word accuse yeah accuse mu accuse niti um, daabo yi accuse danaa leen ko bindal bi accuse mooy tuumaal mu accuse niti daabo yi ne nit ki moom moo tudd am Amat Gite Amat Gite moo accuse niti daabo yi ne ñoo ñoo lakk marché bi accuse mooy tuumaal danaa leen ko bindal fii so bu mu leen tuumaale ne ñoo lakk marché bi te ñoo ñu ne lakkuñ marché bi wax ji ne kurru loo defoon naa si vidéo soose parce que si soose la doon wax te ñu koy déglu ñu bëri soose lañ moo tax ma dee su wax moo lu bëri soose laa dee def te defoon na fi vidéo bu yàggul na leen di wax ne na nit na baro fetel nit ñi nga xam ne ñoo dul déglu fa yeb nguuram gi fa leen war a fetel def ni Omar bun Xataab defoon na Omar bun Xataab ku koy yeb fa lay fa lay def police bu bon tax loolu la Alxuraan wax te loolu la Barrow war a def war a commencé di feteel nit ñi nga xam ne fañ koy yab dégluñ ko si nguuram gi moo ko wax jaxaaram ci Facebook live bi bu yàggul waaw. ba pare nag mu ñëw nag ne ñële ñoo la commencé ba parce que ñële ñoo wax ne fañ yi bu ndoxataal nguur gi meg soo nguur gi danga yàqu réew mi du xamati nguur ñoo ñoo yàq yàq kon nag ñoo ñoo lakk marché bi moom nag waxut boppam moom mi nga xam ne moom moo waxaat Barrow ne ci digg àddina si yëpp mu wax Barrow ne ne feteel nit ñi. du wax boppam dara of course doomu aadama njaay lañ di and <laughs> we nightmare so léegi loolu noonu xew na marché Brikama ba lakk na Amat Gite tuumaal niti bare niti daabo yi next lu xew mooy hmm, Baba Ja fa ñëw si digg àdduna si yëpp weer boppam wax na si yëpp moom nu mu nekkee narcissistique ak li tax muy farle baro njëriñam lim topp ci baro ba tax mu di ko farle mu wax ko àdduna si yëpp of course happily ok narcissistic jikko la boo xam ne dama ko day wax sama vidéo yi léegi lu ma yàgg a jàngale depuis daaw waaye ma koo ragaloon a wax ndik jikko yu si bëri loo xam ne la man mii sax xam naa si yeneen yi te jikko yu si bëri loo xam ne la suñu waajur yi wala kër yi ñuy yaroo wala environnement bu ñuy yaroo asa nit ku ñuul ah dañ ñu ko dee def te xamuñ sax ne loo jikko bu bon la ok so di ngeen gis may def vidéo once in a while di talk about narcissist teg def naa ko si vidéo xolof yi bu yàggul yéen ñi may seetaan xam ngeen li may wax léegi nit ku xamee narcissistique jikko mooy ma façon ngi nit ñu mel ni Baba Ja parce que nit ku xamee narcissistique jikko lu muy dimbale nit lu ne rek intéressant moo tax mu di ko dimbale waaye du firi moo tax nit ku narcissistique warta dugg si politique wala dara warta dugg si dara en général danaa wax bi narcissistique ngeen xam ko soo léegi Baba Jah on defee vidéo mu neexu hoo man doo Mother's Day Mother's Day day mooy bis boobu tubaab yi di defar noonu di sant seen ndey yi di ko gërëm xam nga tubaab yi am nañ Mother's Day xam nañ Valentine Day xam nañ Father's Day xam nañ lu ne day good léegi Mother's Day ba instead of Baba Jah kool yaayam su fekkee fa tooñ yaayam mu balu ko xàq ah déedéet instead of babaaja ah njëriñ li muy defal yaayam ah mu yokk ko bon su fekkee ne mbugg gi mbugg yaayam ba tax muy def moo des des vidéos ah, dëggu la babaaja du def loolu su fekkee ne tamit mu babaaja dafay def moo des des vidéos instead of mu ñëw wax ne rek moom dafa gërëm yaayam sant ko ndax yaayam jigéen ju baax la nangam ak ki nàngam babaaja du def loolu of course babaaja du def loolu because narcissistic du def dara loo xam ne nii it's not about dem nit ku narcissistique mboolem looy def rek fu mu jaar nga woon àddina bi ne lii pour man maay nit ku baax ki man maay ko supérieur ki man maay nit nga xam ne maa gën ñëpp du mën a def dara te boolewu si loolu so baabaa ñëw def Facebook live mu ne moom waaye si Facebook bi si hàngale la ko def moo tax ma di leen ko wax si xolof ndax yen ñi déggul li muy yénoo waxam ji du ngeen mën a xam li muy wax ba mu defee Facebook live ba si hàngale ak hàngaleem yu ni hàngale <laughs> di kool hii haa di xool di di xooyee baayam sii sii fo jigéen la góor hii muy xooyee baayam sii the whole time I was like ah faay da baare hii hii anyway subhanallah léegi mu yaayam olive oil la ko daan defaree diwi sondeel <laughs> ma ko booba ja yaa ma ne fen subhanallah sa yaay xamul sax lu olive oil xóor na ma ne Baba Jah naa ko war si alxuraan yaayam boo ko tegalee butéeli diwi olive oil yaayam du xam luy olive oil si àddina xàmmewut oli olive oil ak diwi kansa koos yi jaay Afrique diw way noonu ci ci ci gutt waaye Baba Jah bi ko fenkat la te dafa narcissistic obviously subhanallah fu mu jaar rek mu practice who he is so léegi Baba Jah wax ne moom daal xam nga nu mu ñëwee di wax ne Mother's Day Mother's Day mooy comme ça bési bési ndey yi bés xam ne ni ñu fay sant ndey yi gërëm leen Baba Jah mënutoon a def lu Baba Jah nekkul di sant ndeyam di ko gërëm si vidéo bi de Baba Jah mu doon def mooy di wone moom ne moom borom xalal la moom nit ku xam tekki la te xam barke te xam xalal te moom fa jëndal rakkam bi waxane mënta dox rakkam bu mënta dox mu ne de ku la ku mënta dox mu ne fa ko jëndal oto gaam bi loolu yëpp la Baba Jah wax si vidéo bi wax ne moom juróomi kër la xam wax ne moom ko oto nangam xam na ko oto nangam rakkam xam na ko benn rakkama nga Mali benn rakkama nga Bamako benn rakkama nga Tambacounda dëkki tubaab yi yëpp mu ne kenn ku ne xam na fa rakk wala mag di wax daal moom nu mu tekkee ak moom nu mbokkam yi tekkee loolu la ñuy wax àdduna bi mu ne mu ne loolu mooy Mother's Day gift what a good to do it Mother's Day gift loolu lu mbokk ak gërëm sa ndey ak sant sa ndey ak bégal ko ci Mother's Day léegi mu ne the excuse excuse mooy euh, luy excuse ci wolof sax excuse mooy comme ça nga def dara nga nga ne lii moo tax ma di ko def waaw loolu rek laa koy mun a li fi ne fàtte naa the word excuse yow la ku ko xam na ko bind down below right now fàtte naa ko so mu ne li tax muy def loolu mooy pour wax fan sam yi koy seetaan wax nit ñi ne soo ñàkkee it boo ëllëgee da nga xam ok soo ñàkkee yi boo ëllëgee da nga xam what that got to do with Mother's Day lu loolu bokk ak Mother's Day loolu su fekkee fa koy def fa ko war a def beneen vidéo is nothing to do with Mother's Day mbala mun na ko def si Mother's Day bi waaye jarut mu di ko def comme moom nu mu ko doon defee li mu ko doon defee is nothing to do soo ñàkkee it mu ñël xëllëg da nga xam déedéet ni mu ko doon def is di wane ne moom dafa tekki dafa barke fa xam juróomi kër gaam bi xam ay oto waaw tekki rakkam yëpp tekki ku nekk ngi dëkk bii këlee nga dëkk bële waaw rakkam bu lafañ ba ne gaam bi fañ ko jëndal oto fa lafañ waaye fañ ko jëndal oto pare jëndal ko iPhone mu ngay wër dëkk ba fi mu ne nii di piip piip motom ba di wane nit ñi motom bi lii yëpp wax na ko soo léegi ba mu ñëwee click live vidéo ba wax fàtte naa yëpp parce que vidéo one hour la te fàtte naa yëpp maa ko doon déglu keroog may togg xañ mu ne moom de yaayam fa ñàkkoon mu ngóog ba tàmbali vidéo mu ne moom yaayam fa ñàkkoon ba bugg a dee ñuy luwaas ci ak kët goo xam ne fañ leen joxoon ñuy duñ fay luwaas listen to this mu ne bañ newoon si kët goo xam ne du ñuy fay luwaas ñu yàgg fa ay xat duñ fay luwaas borom kët ga yërëm leen jéggal leen bugg leen xaaral ma jege sax ngeen mën a dégg wax nii léegi ba borom kër gi nekkee boroom kër gu baax mu ne yërëm leen jéggal leen bugg leen ñu ne fa duñ fay luwaas te loolu noonu lu baax la mu ne léegi mu ne boroom kër ga fa daan jël saako maalo foog naa borom kër ga la wax foofu ay carrément ba fa jël saako maalo teg ko sa buntu kër ga teg ko seen buntu néeg ba pare bañ sax ñoom ñoo xam ne moom moo leen may maalo mi comme ça sarax leen ko daal ngir fa ñàkkoonte sonn good loolu lu baax la kooku xamee leen duñ fay néeg mu ne fañ fa ne woon lu mat ñaar fukki at duñ fay luwaas good mu ne kooku fa leen defal teraanga boo xam ne moo tax nit def lu baax baax ba pare nit boo ñàkkee da ah, nga war a muñ ëllëg a ñëw good léegi lu de léegi ba mu ne kooku fa def loolu ba pare mu ne moom because kooku fa def loolu moo tax moom tamit fay def lu baax mu ne fi ne. te lu baax li moom moom moom xalaatu pour def ko de mu ne yaayam moo ko wax ne ko gannaaw fi mu ne korobaay bi xew na nit ñi xamatuñ luñ fayee luwaas nit liggéey xamut nit ñi fay sonn yow gannaaw yaa ngi xamee ay kët sa luwaas yi dee nga leen a war a baxal buñ fay léegi mu ne xaw ma benn ci luwaasam yi xaw ma ay luwaasam mu ne ñooñ noonu kool fa kool si luwaasam mi ne ko bul fay luwaas tey ren xaw ma fa ñaari weer yi bu ko fay luwaas mu ne loolu la ñëw di wax Facebook bi mu ne fa def teraanga noonu ba ñëw ko wax Facebook bi de <laughs> subhanallah I know I seem so mean but people honestly this is insane and I have to just find a break and, and talk about this so léegi xam naa lu wax noonu mooy ne xam naa ne di ngeen foog ne man dama miin miin mooy koo xam ne daal ku mën a tooñ wala ku bon whatever miin xam ni ko waxee xolof bot lii lu mu def baaxul dafa insane te fu mu jaar rek ma risk it all ñëw wax ko dëgg gi because duma ma seetaan Baba Jam muy def nii nit ñi you know nit ñi muy jàngal ne soo jëndalee nit potab suukar sax dëkkal ci Facebook bi wax ko ba pare yow foo toll wanal nit ñi ne yow ngaa tekki te barke te yaa leen gën wanal nit ñi ne yow ngaa tekki xam nga Baba dafa yàgg a ñaawal Facebook di wane ne moom fa tekki te barke ndax xaw a ñaawal boppam ak gëma di yàlla parce que daf dee wax ne moom am ay millions of views moom daf moom dafa famous saa wu nekk muy fëgg dëndam bi man maa famous man Gambie ku fa famous man fukki nit ñi fa gën a tekki ñi fa gën a famous ñaa dina si xam man maa ci bokk ci fukki yooyu laa bokk waaw ndax man millions of views xam naa ko suma vidéo nangam takat boo gisee vidéo yi muy wax ne millions of views xam na ko ku la fayoon téeméeri fukki junni sax doo ko def moo tax vidéo ya view vidéo dof yu tekki xadi yu toskare yoo xam ne dof bu naan kaana sax du ko def loolu la day jëf def just pour xam view mais ni ko jëfur mais ni gaynde gu dof ba police yi di ko wutaka ñuy block Facebook am beeg fu mu toll si problème ngir ndoxam ngi muy wutee view subhanallah baabaa ja ma koy rew sa kaw dëgg des léegi mu muy muy def loolu noon you know aka jos di wanewu yàgg wax naan ay kët laa xam xam naa nangami kët nii nii nii yàgg wax loolu noonu yëpp aka wax ne ku ku bugg ak nit ñi xam la ñëwal si man man sëriñ yi ma xam ku bëgg famous ku bëgg bës ñëwal si man soo ñëwul si man doo xam bës loolu yëpp a ko yàggaa wax de nit ñi foog ne comédie la du comédie de léegi ba mu def dikkaat si vidéo bi it mu ne mu ne si vidéo bi ne moom ah, léegi yaayam fa ko kool fa ko wax ne ko na may nit buñ fay luwaas léegi mu ñëw ci Facebook bi ne di wax ni ñi ne ci Facebook live am bi ne léegi ba ko yaayam waxee lool moom léegi si la wax yaayam ne ko wax nga dëgg kay parce que ñun ñi ba yaayam ne ko ñu ne ba ñàkkee nit kii mu ngi xamee woon ñaar fukki at fayuñ luwaas léegi yow yow na léegi yow it war a may ñële buñ fay luwaas mu ne ba mu ko defee sala sala wax ñu sala kool kool ni que ne ko ñaari weer yi bul fay luwaas moom fi ne loolu lu baax na lu mu war a ñëw wax Facebook boo man dooyaan mu ne de mu ne luwaas ba juróom fukki dollars la nit ko war a fay weer bu ne juróom fukki dollars loolu mooy ñaar téeméeri dollars loolu la baxal nit ndax xaw ma téeméeri dollar du loolu mooy ñaari weer loolu lay ñëw di kebetu Facebook mu ne de léegi loolu loolu rek doyut de loolu rek taxut de li mu def lu baax li ba pare ñëw di ko weer te moom fañ ko daan defal lu baax di ko jox saako maalo mu ne boo xam ne fañ leen daan jox saako maalo ba ñàkkee boo xam ne kenn bëggutoon ñu xam ne moom boroom xam ne ñoom ñoo leen ko jox fañ ko daan teg sa buntu néeg ba gaa yi watat ko dugal mu ne ndig loolu la yàlla wax booy dimbale nit ku ñàkk nga koy def ngir sutura mhm. waxuma yéen ñi lii soo gisee ma di ko wax yéen ñi dee vidéo nit ñi ngeen di dimbale Gambie loolu taxul may wax de def naa si yéen vidéo wax naa loolu si benn vidéo bi foofu yéen ñi dee ñëw Facebook par exemple def GoFundMe pour bugg nit ñi donate leen ba pare nit ñi donate leen pour ngeen war a dimbale nit ñi Gambia fu mu jaar ngeen vidéo ko ndax su ngeen ko vidéo nit ñi duñ leen gëm mooy problème bi ñun nit ñu dañ nit dañ always need evidence so fu mu jaar ngeen vidéo ko ndax ni ñi xam ne xaalis bi leen di jox néew leen di ko lekk loolu is different loolu àdduna bi yëpp ñooy dimbale nit ka du wut yow kenn mhm. just to make that clear waaye pour yow nga kool nit koo xam ne mu ngi luwaas sa néeg nga ne ko buy fa bul fay luwaas ma koy def ngir yàlla ndi pandémique bi coronavirus bi ba pare ñëw di ko wax Facebook loolu fa wuute ñun ñëpp kenn ku ne lim def ci coronavirus bi ba xewee tey buñ toogoon di ko kebetu Facebook konoon dee nañ kebetu bañ robiñu <laughs> képp ku narcissistique te nekk Baba Jah fu mu jaar rek nga woon àdduna bi yëpp yow yaay kan ak loo xam ak yow noo nekkee ni ko supérieur ak yow noo sañee te xam yëpp man lépp wax lépp baabaaja gaynde gi sekoon yàlla boroom jalang yi boroom borom jos pëli pëng jéegum ñay fu mu jaar nga def loolu so Baba Jah ñëw na def loolu I was like what the hell léegi Baba Jah mu ne moom uh, kët xaw ma këtam genn ci këtam yi xaw fa fa fa borom ne ko bul fay luwaas ñaar benn ca luwaasam ya mu ne ko ko fa kontaan ba mu ko ko waxee ba moom mu ngi yëg koog na mu kontaanee ci téléphone bi léegi fa koy wax pour nit ñi def lu baax noonu mu ne de mu ne nit ñi lay sant la ñu def lu baax moo tax muy wax loolu waaye duwut ne moom fay wane wu de. gis nga nit ku narcissistique fu mu jaar dafay wiire wax bu xew rek dana wiire nag ba wane ci mboppam ne moom superhuman la ne moom moo gën ñëpp moo gën a barke moo gën a baax moo gën a tekki waaye fay also wiire nag wut lay nag gis nga nit ku narcissistique narcissiste ku xut lay si àdduna ku ne ku mën a xam lay ku ne ñooy sa maam moo tax ma commencé di tokk about narcissistic soo gisee ñu suñ culture bi mel nii dafa fees dell ak narcissistic te ñu ñu si bëri nag si culture bi lañ koy jëlee mag te xamuñ sax luy turu narcissistic narcissistic mooy ni ko xam ne yow ngay wone foo tollu ne yow yaa gën ñëpp yaa gën a tekki ñëpp te yow foo tollu ngay wane ne yow defoo dara te yow foo tollu ngay wane ne yow yow daal yow daal lu baax lu ne rek pour yow la te yow sooy bugg nit du nekk nga koo bugg pour générer pour normal natural bugg déedéet nga koy bugg pour nga xilif ko contrôle ko mbala nga jëriñoo si moom ñett yi rek nga bugg nit pour nga xil contrôle ko mooy xilif mbala nga jëriñoo si moom mbala borom di la jaamu yow di la def ne nga mel ni gaynde gi nga bu gaynde gi nga foog ne moom nga borom di la ko def ñetti yi rek mooy tax nga bugg nit waaye du nekk natural bugg ku la joxut ci ñett yi benn rek doo ko bugg loolu mooy narcissistique léegi xam ngeen ko good ma continuer so ba mu ñëwee wax loolu noonu yëpp waxaat dina si yëpp ne moom fa fa wax ni que bu mu fay luwaas mu dellu waxaat dina si yëpp ne moom rakkam bu lafañ ba fa ko jëndal moto moom daal nangam ak ki nangam moo xam ne juróomi kër Gàmbi moom fa tekki te ñoom bañ duxeegu ne xamuñ woon dara yaayam fa leen daan diw diwi sondeel diwi sondeel de man mii diwoo naa ko ma duxeegu ne waaye diwi sondeel duwut olive oil lañ ko daan jaxasee mu wax ci facebook live am bi ne yaayam fa daan jël olive oil di ko jaxaseeg sondeel di leen ko defal diw subhanallah Baba Jah yaa mën a fen Baba Jah yow sa yaay bu ñàkkee bay defar diwu sondeel ni man na suma yaay meloon ba mu ñu daan defaree diwu sondeel est-ce que yow sa yaay kon dana xam luy olive oil dana xam luy tuuti olive oil saka di ko jënd mënoo wax cooking oil rek diw gu ñuy toggee rek kon ngay dégg anglais anyway kon doo mel ni Ami Jóob ok soo léegi mu ne yaayam olive oil yaayam nga xam ne xamul njëgi diw njëgi karité sax xamu ko ñàkk ba mel ni na sama yaay na sama yaay meloon ba mu ñu daan toggal diw sondeel diw sondeel mën naa koo togg jaxase sondeel mu ne diwi sondeel googu yaayam olive oil la ko daan baxale te yaayam kat wóor na ma yaayam ne ba tey jii boo ko wanee olive oil xamul luy olive oil baabaa ja wax na loolu di xooxee baayam si si mooy jigéen xii mooy góor danaa ko bind fii si an xii ngeen xam ko su ngeen di wax jigéen ngeen di wax sii su ngeen di wax góor ngeen wax hii waaye nag african bu nekk dana jaxase hii and sii jóg sa xam naa loolu man sax mu koy def waaye moom nu mu defee foofu daf doon xooxee baayam hii the whole time time bu mu doon wax ne baayam fa dee yëpp la nettali ba nettali baayam nu mu dee ci vidéo bi moo ami jo waxee léegi Baba Jah nettali loolu yëpp ci Mother's Day bi te loolu is nothing to do with Mother's Day de wax Baba Jah fi nga xamee ne fa ñàkk yar te ñàkk kersa te ñàkk teggin te mel ni ku wétu nekku jos dafa narcissistique mooy fa njëkk a xas yaayam ak baayam balaa muy tàmbali vidéo bi moo tax Baba Jah comme xas mu naqadi la ngaa wétu mu ne moom yaayam ak baayam fañ xam doom su ma fàttewul loolu la wax mu ne yaayam ak baayam baayam xamutoon beneen jabar benn jabar rek la xamoon waaye baayam ak yaayam dañ biisi woon dañ biisi woon di def affaire bi nii dañ biisi woon biisi mooy comme xam ngeen biisi daal xamu nuñ koy waxee si xolof right now fañ bii si woon fañ toll rek ñu ngi ci def affaire bi moo tax ñu am juróom-ñetti doom xoolal lii rek xoolal lii ku koy wax si sa sa yaay ak sa baay ci digg Facebook live loolu la tàmbalee waxam ji léegi mu daal di wax daal yii nii yëpp wonewu wone wa du mën a wax rek gërëm yaayam si jàmm wax ne suma yaay yaay ju baax la xoon nangam nangam dama leen bu ko wax ne ku xam yaay nanga ko topp dimbale ko ndax yaay Afrika yombut yaay Afrika de day sonn xam xamut lu luñ dub daj pour pour pour pour yar ñu ak dundal ñu ñun ñu si bëri si ñàkk lañ magee mbala suy nettali ñàkkam gi sax boobu mu nettali ko te bañ a wax nit ki nga xam ne fi ko wax ne ko bul fay lu waa ñaari weer ñëw di ko weer ba pare mu bañ a wax kon moom xaddina si mu wax leen ay xam naa juróomi kët xam naa oto ak suma rakk ba la fañ ba sama koo jëndal oto jëndal ko iPhone mu ngay wër biir kaama yëpp di piip piip moto bay wonewu loolu lool loolu ndox la wala anyway loolu yëpp Baba Jah def na ko si Mother's Day so-called Mother's Day vidéo bi léegi mu nu mujjee si vidéo bi mooy mu ne fay xoo yaayam wax ko ne mu baxal ko xàq su fekkee fa ko masa tooñ fa koy balu xàq day sent fii ngay xamee also ne Baba Jah nekkul doom ju baax si yaayam gis nga doom ju baax du ne ngay jëndal sa yaay kët jë yóbbu ko màkka ok wax na ne yóbbu na yaayam màkka wax na loolu it naa baayam sax wax na ne yóbbu na ko màkka it also wax na ne moom saawu wu ne fee yónnee yaayam xaalis yaayam lu soxla yépp a koy def waaw moom yaayam fi mu ne yëgatul dara weer bu dee bu defa koy yónnee xaalis Baba Jah fa mel ni ku jëfur anyway dafa mel ni ku jëfur taay yëpp moo a am jóg but again jëfuurati na si moo des de vidéo bi so léegi also léegi Baba Jah ba nga xamee ne mun a wax te boolewu si wane moom mooy kan you know ak wane who how narcissistic he is ok also mu ne listing fii laa xamee also waaye lu tax Baba Jah di dimbale Barrow xam nga wax naa ko si yeneen vidéo yi may wax yi ma yi ma yi ma def in the past ne Baba Jah soo gisee nga tuddee sa doom ji Barrow du neen duut bugg Barrow mi ngay wax rek far Baba Jah weer boppam fii la weeree fii la gën a weeree boppam mu ne moom baayam balaa balaa muy gaañu mu ne baayam dafa gaañu mu ne balaa ba baayam bu muy dund fa ko wax ne ko ñii nga xam ne ñoo ñu def si suñ kër gi te duñ fay luwaas si seen kër gi te duñ fay luwaas jigéen ji doomam yi ak famille bi dee leen dimbale boo ba ngay dee loo foo fekkee foo leen mën a dimbale dimbale leen boo leen di dimbale si fen sax dimbale leen Baba Jah moo wax lii àdduna si yëpp ci Facebook live bi xaw xam nga baba ji fa foog ne foofu moo gën a supérieur te gën a muusaat ma si yëpp te xamul ne <laughs> xelam mi fay tukki ba ma ko mu weer àdduna si yëpp nag wax leen moom li tax muy dimbale baro ci fenam yi ak ak ku mënti dimbale ko ne rek parce que moom fay dimbale ngir defal nga ko nangam moo tax mu di la dimbale moom façon nit kooku la wax na ko mu ne because ñoom ñu ngi dëkkoon ci kër góog te fayiñ luwaas baayam moo ko wax ne ko gannaaw kii defal nañu teraanga gii dee ko dimbale moo famille bi soo leen di dimbale ci fen sax dimbale ko Baba Jah na lii ci soose vidéo baa nga dale yéen ñi ko gis-gis ngeen ko foog naa vidéo ba tey mu ngi ca YouTube channel su ngeen fa demee ku dégg soose di nga ko gis so loolu yëpp Baba Jah wax na ko ay was like what the hell maa ngi toog keroog di ko seetaan I couldn't believe it maa ngi ree di jommi di ree boole si ay no doon woori Baba maa yow ñoo xam def nañ fa suñu vidéo yi ba sonn nit ñi dañuy seetaan di jommi di ree soo léegi wax ba waxee loo noonu yëpp ma ne xëppatalaw you ma yokk suma koraa gi de xam nga tax wax loo noonu yëpp ba pare leneen lu Baba Jah wax tamit loo xam ne moom moo gën a jommal leneen lu mu def mooy just pour nga xam ne Baba Jah is narcissistic maa ngi sonn si sax si weeru koor moo tax ma a jóg pour def bi waaye ba tey dama am pour gaaw a am vidéo balaa sama énergie di jeex Baba Jah pour nga xam ne Baba Jah is narcissistic maa ngi try pour recall vidéo bi yëpp de pour fàttaliku ko vidéo bi war na wala te ma ko seetaanee léegi war mat ñetti fan si gannaaw ñeenti fan leneen lu mu def si mujjanteelu vidéo bi mooy Baba Jah dafa ñëw wax ne moom fa bugg a xoo yaayam parce que fa déggoon benn waare fa am waare bu mu déglu nit ki di wax ne mofti di wax ne ku tooñ sa yaay ndax yéen da ngeen di toog a toog ngeen balu seen bu ngeen ko tooñul sax jos kool ko rek ne ko baal ma xàq ndax man dee doom ju dëgër bopp laaxoon si yow wala nangam nangam wala su fekkee nga ko mosoon a def tara nga balu ko xàq mu ne loolu la ko doon wax kon léegi moom fay ñëw balu yaayam xàq ci digg Facebook bi mu ne su fekkee mas na koo tooñ lestin to pour nga xam ne Baba Jah nekkul doom ju baax ci yaayam mu ne moom mu egeen mu weer boppam mu ne moom musta balu yaayam xàq musta kool yaayam di ko balu xàq musta def lii bi mooy first time ku mës a doom joo xam ne mosoo balu sa yaay xàq nit ku dut balu sa yaay xàq doo balu sa jëkkër xàq doo balu sa jabar xàq doo balu sa doom xàq doo balu sa xarit xàq doo balu sa rakk xàq sa mag xàq sa nit nit nit ku ngay jëfalante daal te soo ko tooñee doo ko kon yow du ndax nit kuy jëflante nit te doo ko mas a tooñ xamut bëriwut de xanaa nga nekk maasi narcissistique maasi baaba ja yi nga xam ne ñoom de always right nit ku narcissistique fu mu toll rek moom moo right du mas a tooñ kon du mas a balu nit xàq waaye nit koo xam ne nekkoo narcissistique fu mu jaar nga balu nit xàq ndax fu mu jaar nga tooñ ko ndax nit kenn matut waaye sa ndey wala sa baay wala sa jëkkër wala sa jabar wala sa doom ki nga xam ne moom ngay gën a dëkkal sa àdduna daal kooku moom fu mu jaar nga balu ko xàq ndax fu mu jaar nga tooñ ko doo si mata ndeyam nga baayam nga du moom rek moo la war a balu xàq sakantuma ndey wala baay baaba ja mu ne musta kool yaayam di ko balu xàq soo moom dafa tiit te dafa ragal te dafa naabus baaba ja dafa tiitoon bay lox di kool yaayam rek nag far yàlla def kool ba doxul yàlla nanguwu ko xam naa ne du ko def ndig fa ko doon bugg def ngir Facebook live pour wane wu nit ñi waaye su duur Facebook du du kool yaayam balu ko xàq parce que dafa rëy du Papa Dia dafa niroon ni ku rëy te dëgër bopp te narcissistique wax na ko si vidéo bi sax anyway mu ne woon dafa dëgër bopp te bu mu xale daf daan sàcc daf daan def lii daf daan def laa dafa dëgëroon bopp te ba tey noonu la mel ba tey sàcc la fa dëgër bopp moo tax mu tuddee ba baro doom ji yépp ci sàcc mi la subhanallah soo ba tey dafa nekk narcissistic nit ku narcissistic dafay dëgër bopp mën a fen mën a sàcc mën a ah narcissistic is just insane so again mu wax loolu noonu yëpp ba pare mu wax ne fa bugg a kool yaayam pour baru ko xàq mu kool kool kool téléphone bi kenn jëlu ko baaba jaa ngi ñaqatoo xeb bay hupp mu ne foofu moom tiit te naabus te masta def lii tiit di laaj nit ñi sax lu ngeen lu ngeen foog ne laa war a ko koolee nu ngeen foog ne noonu war a ne ko mu baal ma xàq baal xàq sa yaay fa xam la ko nit ñi war a jàngale mooy ne yow ma soxa balu sa yaay léegi far mu kool kool téléphone ba doxul waaw mu ñàkk tooy xepp kool kool kool téléphone ba doxul mu ba waaw foofa daal falaa mujjee baxee vidéo ba jékkali ma ko yëpp yëpp yëpp waaye man de ma jommi ci baabaaja vidéo bu xees bu mu def nii man nag maa ñëw pour wax ni ñi koy seetaan ne baabaaja vidéo bu mu def nii yéen bu leen ko toppandoor de baabaaja vidéo bu mu def is not motivating anybody baabaaja vidéo bu mu def nii the only part lu fa motivate nit mooy time bu mu waxee ne yaayam fa daan use olive oil ga te yaayam diwi natt poti diwli ni natt yi natt lantinoori diw yi pël putay daan natt noonu ci mbuus nga yóbbu butéeli diwli ñu nattal la ca yooyu la yaayam daan yu duur di olive oil yaayam ak suma yaayam time booba ca ñàkk xamuñ woon luy olive ba tey yaayam xamu ko moo suma yaayam ba tey xamuñ olive oil wóor na ma too local to understand the word olive oil let's just be real suma maas sax bu ma ñëwtoon Angleterre foog naa ba tey duma xam o so su fekkee ne yaayam fa ñàkkoon ba ba ñuy ba bay defar dewi sondeer te nit ña di leen sëppal saako maalo ci guddi ci lëndëm gi pour bañ ko ko ku leen ko jox ah te yaayam di bale saraas yi ca kër ga yëpp mu ne kër ga fa bëri woon ay saraas yaayam di bale saraas yi di ko toppatoo borom kër ga di leen may saraas ah, di leen may génn saraas nga ne leen gii ko bugg a jël lekk ak mu ne borom kër ga su jaayee saraas ya fay may yaayam xaalis ne ko yow yaay balekati saraas eroon saraas yi kon fi mu ne bi loolu is very motivational man ay am somebody man koo xam ne laa dama dee bëgg pour wax suma story pour nit ñi jàng si def naa loolu ba sonn te dama dee te damay continuer di ko def waaye soo waxee nit ñi ne man suma yaay fa ñàkkoon jarul ngay wax nit ñi ne suma yaay suma baay dañ dañ dañ biisi woon di def affaire bi di biisi def affaire bi moo tax ñu am juróom-ñetti doom loolu is disrespectful and is insane for for a Gambia for a African child nit ku jógee Gambia wala Sénégal di wax loolu ci digg Facebook. di xas sa ndey ak sa baay ci liñ daan tëddoo ak a xam ay doom subhanallah ponkalam jëm mu xem ni yow Baba Jah ñeent fukki at foog naa war nga koo xam de Baba yow foog naa yaa wax loolu I was like what the mu ñëwaat di wax nit ñi waxut ne rek ne nit ki soo xamutee sax mu ñëw afta dang dee tekki ndax man mi tey yàlla dimbali na ma tey compétu nañ ma doon ba duxeegu ne fi mu ne nii alhamdulilah yàlla dimbali nañu xam nga mënoon naa xem foofu rek dafa xam pour lim juróomi kët la xam te wax na luwaasam bi ne ko bu mu fay weer ñaari yoon te moom jëndal na la kambul la fañ bi moto te moom nangam ak ki nangam loolu yéen ñëpp waru leen a roy ku wét du roy loolu loolu tax ma jóg di wax. fu mu waxee ne yaayam xamutoon loolu mën na leen see motiver motiver das good fu mu waxee ne baayam daf daan toggal nit ñi ndékkeeg nangam loolu yépp baax na góor yi dañ war a dimbale jigéen ñi fu mu waxee ne borom kër gi dafa nekkoon ku baax si ñoom fayin luwaas loolu lu baax la. def na si moom nag warutoon a wax moom lu mu def moom lu baax lu mu def ñaari weer yu may kële ñaari weer dong ñoom ñu ngi dëkk sa kër googu ñaar fukki at fayin lu wax te wóor na ma ne borom kër ga du daan di ko wax. parce que moom wax na ne borom kër ga dafa baaxoon te dafa leen daan sutura kenn xamul sax na ko te wax na ne it foog naa borom kër gi la wax ne moo leen daan sëppal saako maa la guddi seen buntu néeg kon koy borom kër ga dafa leen daan sutura seen ñàkk gi léegi nu mu ñëwee di wax nit ñi ne moom luwaas katam yi fa leen wax ne buñ fay fi mu ne nii tey ku xam luwaaskatim luwaaskatam bu nekkatam dana xam ne diw sàngam mi moom la am moom la moom la Baba Jah wax ne ko bu mu fay dafa doon wax sax ne kooku noonu fa kontaan kook noonu ba mu ko waxee kooku kooku noonu dafa mel ni dafa kontaan ba mel ni moom yëg na kooku mbégte gi yëg na ne kooku daal xamutoon te te mu dimbale na ko foog naa wax na sax ba ne kooku daf ko wax ne ko li nga def nii baax na xam xamoo li nga def nii sax parce que fi ne nii xaw ma dara nangam nangam mu ngi weer kooku ñàkkam gi si digg Facebook bi ku xam kooku fi mu ne te te seetaan vidéo dana xam ki muy wax ne su fekkee ne su fekkee suma kër la par exemple ku xam ku dëkk suma kër Gambie dana xam ne amee diw yoon su dul loolu sax yow waroo xa def loolu noon ñaari weeri luwaas kese nga may ko nit ñëw di ko weer te yow nga dëkk si kër nga ne ñaar fukki at fayoo luwaas te borom fa la doon sutura boobu noon moo war a motiver nit ñi borom kër goog teraanga bu mu la lebal kuy jàng na jàng sa booba yow sa fake teraanga si narcissique teraanga bi ngay def pour wax nit ñi ne yow ñëpp loolu noonu kenn bu si jàng du du leneen lu nga xam ne nii nit ñi war nañ see mun a jàng mooy ne nit ki soo ñàkkee da ngay muñ di nga tekki suba dëgg la like I said loolu noonu is good pour ñu waxal ko nit ñi waaye du niñ koy waxee yow danga koy wax in a narcissistic way moo tax ngay lim sa kët yeeg lim motoog lu wax bay wax sa lakk bu lafañ bu bu ne Gambia nga jëndal ko oto kon kay yow jarul ngay jëndal sa lakk bu sa rakk bu lafañ bu ne Gambia oto gannaaw nga koy jënd oto pare ñëw Facebook di ko wax àdduna si yëpp di ko ko xasee subhanallah baaba ja musumaa gis ku mel ni yow so lii nii yëpp Baba Jah def na ko you know it's just insane ba pare mu weer boppam wax ne baayam moo ko wax ne ko nit ki dimbale ko famille bi da leen dimbale boo leen di bu ñuy buy fen la sax dimbale leen mooy ne yow soo gisee ngay dimbale baro ba mel ni dëmm ci Facebook bi di jëfuur hmm? duut dimbaleem baro ak tuddee sa doom ji baro duut bugg baro ak baro muy dimbale réew mi de it's because yow fañ la fañ la yaree ne la su si fen sax dimbale si nit ñi buy fen sax loolu lañ la wax te loolu ngay dund right now dama bëgg nga xam ne nag ñun suñ parents yi ñoom ñu si bëri seen xel mi nu muy doxee wala nu ñuy gisee xaduna time boobu ak xaduna léegi nu muy doxee du benn ñun léegi dañ xam xaduna dañ xeexu suñ génération bi te xale yi ñëw ñoo ñuy gën a xeexu ñun dañ xam luy narcissistique mooy façon nit bu nga doon nit koo xam ne interest rek lay topp ñun dañ ko xam te ñun dañ xam dox dund dëgg wax dëgg su la nikki ki dimbalee defar la teraanga it dimbale ko waaye su tolloo foo xam ne lu muy def du dëgg na ko ñemee wax dëgg nga jàmb ko wax ko dëgg loolu mooy gor so yow yàllaa la weer moo tax nga ñëw wax àdduna bi yépp ne sa baay lii la la wax te yow lii ngay dund moo tax ngay jëfuur si mbiri président Barrow saa yu ne I have to rap about Baba Jah léegi jeexal naa mbiri Baba léegi damay move Sénégal right now Sénégal right now lu fay xew bëriwul of course danaa wax loolu noonu bala may end vidéo bi number one mooy Sénégal fa xam góor goo xam ne fa jënd saraas saraasi deret yi ok English lesson back on si deret yi moo tudd blood orange si hàngale saraasi deret yi fa xam man sax danaa koy jënd bugg naa ko suma doom ji jigéen ji te daf ko day lekk waaye ku góor ki day déedéet ku moo ko day lekk waaye ku jigéen ki xemalu ko noonu sarasi deret la tudd mooy blood orange blood orange mooy sarasi deret sarasi deret fa xam waaye foog naa xamul Afrique de bitim réew fii la dee xam moo tax yéen xamu leen ko te ngeen saras yi xonq yi ngeen dee gis Afrique noonu si gannaaw nete noonu yooyu yëpp saras day jógee ay bitim réew fii la saras yi si gannaaw duy netee noonu waaye nag moo gën a baax bu leen di jënd saras yi si gannaaw nete ngeen foog ne rafetaay bee tax ngeen war koo jënd déedéet saras yi Afrique yi mooy organique original saras yi nga xam ne defuñ ci benn garab pour mu gaaw a original la moo tax mu baax si yaram téeméeri junni yoon benn saraasi Afrique li muy def si yaram man ngaa lekk siwop saraasi bitim réew te du ko def sa yaram bi kon bu leen di xeeb seen yi loolu laa leen njëkk a bugg a wax. waa Sénégal yéen laay waxal gis ngeen lii nii man maa ko jënd tey Dakar bi may ñibbisee tey samedi tey bii nii laa ko jënd ñaari mbuus laa jëndoon orange la gis ngeen ni mu mel li yëpp deret la. coton baa ngi nii li yëpp deret la bàyyi woo nag lii nag kenn ku nekk nanga ko sóor ku jënd orange balaa nga koy lekk jëlal sa paaka nga xar ko si digg bi nga xool ba xam lii dakaar la ma dalee maa ngi ko jëndee Dakar PDCL laa ko jëndee si garage 55 bi kenn ku nekk na nga moytu lii xàmmee naa femme bi ma ko jaay bu baax nag xàmmee naa ko bu baax a baax yorul taabul yorul guddi da buus nii téega si loxo bi di wër si oto yi di jaay amaana ne moom sax xamul lii lan lan moo si nekk quoi parce que day jaay mais sa fa mu jóge la xaw ma nag ban dëkk lay jóge di dugg Sénégal ndaxte Sénégal lii nii amu fi kon nañ moytu bu baax def muy nii lii du ay caaxaan nii yëpp deret la muy nii scoton bi ak feebar bi nekk suñu dëkk bi nii nañ ko sóor bu baax a baax a baax nañ gën a farlu gën a moytu bu baax muy nii wasalaam li ma leen di waxaat mooy góor gi mu koo yërëm ndax góor gi fa foog ne saraas yi saraas yi dereti doomu aadama njaay la loolu la góor gi foog bu góor gi fa tiit te te feel betrayed and feel scared nit ñi koy vidéo yëpp a ngi feel betrayed and scared hey ndeysaan waaye ok li tax vidéo bi daw yaram mooy nekkul ne jos nit ki li mu foog ne saraasi saraasi deret la te du te duur saraasi deret you know this funny thing no li tax mu daw yaram mooy ñun suñ nguur gi suñ nguur yi Afrika. Hmm? parce que ñoom seen poot yi duñ leen di seet lu fay dugg seen yoon néew ci luy dugg ci ci poor yi Afrique yi gannaaw fay nañ leen xaalis rek fa ñuy nangul bagaas yi dugg suy rey sax lu ci bëri moo tax nag ñun suñ nit ña sa réew ma xam nañ ko te wóoluwuñ poot yi wóoluwuñ nguur gi ndeysaan danañ leen mën a kaar saan moo tax ku jënd saraas xar ko saraas ba xonq rek nga tiit foog ne ndax saraas si deret la ndax xam nga ne nguur gi lu ne dugg ci réew mi lii tax mu daw yaram parce que man saraasi deret yi ba ma ko njëkkee ak jënd fii xaw ma ko woon time boobu ma koo jënd supermarket xar ko gis mu xam deret waaye ci gannaaw gi mu ngi xonq tuuti tamit xam na si yoo xam ne gannaaw gi fay xonq xam na si yoo xam ne gannaaw gi da xonq sax ma xar ko mu xam deret xalaatu ma woon ne lii dereti nit la xam nga lu tax parce que xam naa ne maa ngi xàngatee bitim réew te xam naa ne seen nguur gi duñ nangu ñi di ko jël di ko sarse si sarax di ko jaay supermarket supermarket ba du ko nangu nguur gi du ko nangu parce que xam naa ne ñoom seen nguur gi fañ xam fayda moo tax xalaatu ma ne deret la ma ne xaay sarax bi de nii la bindoo waaye sarax parce que xam na grapefruit sax yu mel noonu ma sonn naa xam grapefruit yu mel ma ne ah sarax bi de nii la bindoo fa xonq si biir ma jël kayit gi liir ko gis ne ñu ne ñu ngi fa bind blood orange ma ne ah sarax si deret la mu ñu wax ni sarax si deret fa baax si yaram ma commencé def research parce que man lu ma xamul su ma ko gisee dama dee def research bu ma defee research ma ma jàngal ni fa baax si yaram ñu bind yu baax si yaram yi muy def yépp ma ne ah moo tax mu neex ma te daf ma neexit fa neex. fa xala xuute tuuti ak yeneen sarax waaye li xuute bëriwul seen cafka gi fa xala mel ni grapefruit li turbit soo saabu ma demee Sainsbury's moo ko gisee dama ko dee jënd tey nii sax naa fa dem incha allah su ko xamee naa ko jënd léegi nit ki foog ne sarax si deret yi la dereti doomu aadama njaay la ndeysaan nit ki yaramam waa man suma yaram fa daw sax nit ki ma koo yërëm you know so the other thing also luy xew Sénégal mooy Sénégal xam nga saa yu nekk ma daan gis ci ci ci seen vidéo yi le ak télé yi sax nit ñuy wax ak ci seen série yi sax série yi nit ñi wax naan nañ ubbi jumaa yi télé yi nit ñi wax naan nañ ubbi jumaa yi imaam yi wax naan nañ ubbi jumaa yi man de ma daan wax ne jumaa yi de buñ ko ubbi ndax feebar bi xamut nit ku do jullit ak nit ku doxul jullit te feebar bi xóorul ma ko daan waxtu man kenn di ko kebetu de waaye but bu yàlla sàkk senegal ne nañ ubbi jumaa yi again another English lesson jumaa mooy mosque si hàngale open mosque open mosque mooy hubbi jumaa close mosque close mosque mooy tëj jumaa open mosque mooy hubbi jumaa Senegal has opened their mosques mosques at this point mooy jumaa yi yoo xam ne ëpp na benn Senegal has opened their mosques or Senegal has opened their mosque mosque mooy benn juma mosquis foog naa hey ticca bu jàngut <laughs> mosquis mooy jumaa yu bëri Sénégal has opened their mosques mooy Sénégal ubbi nañ seen juma yi Sénégal has opened their mosque mooy Sénégal ubbi nañ seen jumaa ja su dee genn juma la but waaye but mooy waaye people are refusing to go waaye nit ña fay ragal fay ragal a dem ah danaa dee amatuma énergie moo tax ma dee bëgg a def sama vidéo yi suba tee waaye ba tey duma am énergie suma weer ko Sénégal ubbi nañ seen jumaa yi waaye nit ña fañ fañ fañ fañ lànka dem mooy Sénégal has opened their mosques but people are refusing to go ok Touba but mooy waaye Touba Tuba mosques are open and people are going wala nga ne but Tuba Tuba people but people in Tuba are going are, going to mosque mooy waaye nit ña ne Tuba ñoo ñu ngay dem jumaa Senegal has opened their mosques Senegal ubbi nañ seen jumaa yi but people are refusing to go waaye nit ña ñu nga lànk duñ dem but waaye Touba but waaye <laughs> in Touba ca Touba people are going to mosque nit ñaa ngay dem jumaa hey murit rek si si xaru no murit rek si jeex jàmm ak xaru ak suur na no moo tax ma mel nii waaye xam nga man sama waaye sama maam fa bokk ak maam Jaara so I'm not joking honest sama maam fa bokk ak maam Jaara Buso li tax mu mel nii man it yenn yi may wuti brique ci suñ deret gi la ne deret te murit gi you know so murit moom xam nga murit rek si jeex jàmm murit rek si sëñ Tuuba murit rek si si si xataraayu kenn du ñëw si woor yow murit rek si woor yow soo dégg naa Tuuba moom ñu ngay dem soo xaw ma nag I hope ne feebar bi daal du sonal nit ñi Sénégal parce que right now is Sénégal yéen a ngi doon wax ne Macky Sall na mukk na na hubbi bàyyi foos na hubbi jumaa yi Macky Sall hubbi na hubbi palaas yi juma or mu hubbi ngeen ragal dem gaddi haa tur ki jam fitna ba ngeen gisee feebar bu bëri nag ba nit ñay dee ngeen ne pëttaloo Macky Sall nit ñi la bugg a rey bañ ko waxee ni ko mu hubbi jumaa yile ba tey hubbi hut jumaa yile xaar ba feebar bi ne ne las ci dëkk bi nit ñi ñëpp ne las mu soog a nag hubbi jumaa yile nit ñi la bugg rey Macky Sall nu leen di bugg a reyee bu leen reyee lu mu koy jëriñ yéen fas fa leen soxla ngeen wateel ko ndax mu do seen président fa leen soxla nu leen di reyee anyway su ngeen foogee ne saraasi deret yi fay reyee kay tubaab yee ko soo sarse deret di ñu rey kon kay da foog ne Macky Sall dafa bëgg a rey nii. anyway video bi jeex na tey hopefully ne di ngeen learn some little English and also hopefully ne am ngeen fun enjoy video leen ne sama video is all about education and entertainment mooy jàngee ba pare reex yi tamit soo jaru ngeen koo jël personnel seen xol bi jëf-jëf yi ngeen di kiris kii Amie Jobe la man suma xaar dina ma suukar bu yàgg naan ko di boobu dee gën a gu kiris ngir man tamit fekk man maa ngi taxataay di enjoy na so please ñaan naa la bul kiris ne leen xam ne video bi is entertainment purpose waaye also ñu jàng si lu ñu war a jàng you know kenn mutut àdduna you know including man you know maa ngi jàng àdduna every day as I get better every ma jàng rek damay ñu jàng ko soo yenn yi suma yeneen wax yi du yomb parce que ngay wax par li ma wax si Baba Jani nit ñi gis ko sikk la ñeneen ñi mere la wala Baba Jani si boppam mun naa mer and stuff waaye dama dee risk it all yenn rek pour wax lu ma war a wax loo xam ne dafa dugg suy suma mbir la sax su xeboo ngeen use ko xas ma sax ba dama leen dee wax lu ma leen war a wax rek you pour ñun ñëpp ñu xam ne àdduna it's not need to fake you know so yeah ngeen am good day jërë ngeen si vidéo yu ngeen di seetaan like leen share subscribe to the channel and yeah would let me know what you think of the topic bind leen si roon wax ma lu ngeen xalaat si topic bi te maa ngi ñaan yàlla génne fi feebar bi yàlla may ñu julli jàmm may ñu weer koor ñu jekkale ko si jàmm feebar bi yàlla na fi génn yàlla na fi génn yàlla na yàlla génnee feebar bii yàlla na ko fi yàlla génnee delloo àddina si suñu meloon yàlla na ko fi yàlla génnee delloo àddina bi suñu incha allah da yàlla dina ko def te yàlla nañu yàlla gën a ubbil bunti wërsëg may fanu bu dawee yaram an ya jërë ngeen jëf si vidéo yu ngeen di seetaan bye see you next time <laughs>